dal leen ak jàmm mbokk internet yi lu doy waar Wally Ballago Seck mu ngi xalangu ci wurus ca waxtu woowu baayam ja di Thione Ballago sekk moom ma nga jooy ay facture 26 avril bi ñu génn tolloo ak anniversaire u kile di Wally Ballago sekk kii di soxna dara jox ko ab cadeau kurusu wurus waaw waaw chapelet en or keneen ku ko jox cadeau wurus di kile di Clara nekk soxna ci waayam ja Doro Gueye moom it ab lamu wurus moom la jox cadeau kile di Wally Ballago sekk te lu ngeen xamul mooy boobu leen lamu wurus sax dafa Waly Jama lii di ay firndeel ak tegtal yu war a mën a tax ñu wax ne kilee di golden boy musique sénégalaise mu ngi xalangu ci wurusu mbégte koom-koom fan yi itam ci réseaux sociaux yi ñu ngi seeni kilee di Waly Balago Seck mu yore ab damar bu cher te rafet kaar waaye li ëlëb nit ñi ci jamono jooju mooy kilee di baayam Thione Balago Seck ci waxtu woowule ma ngay jooyte di wax ne amut lu mu fayee facture ndox ak courant daanaka dem na sax ba di ci waxtaan ak ministre de la culture bi nga xamante ne jot na koo dem seeti ci altine ñëpp ci réseaux sociaux yi ñu ngi koy waxtaanee xanaa Wally Ballago Seck yëgul ne baayam ji am na ay problème ngir mën a fay facture ndox ak courant jërë ngeen jëf